وجنة عن هالك المريد الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغال بفروج وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغال بفروج وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به bisimilah barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew yéen ñi nga xam ne ni yéen a ngi topp cellule communication bi aju ci kuréel gi di junnatun di kuréel gi cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké taxawal ngir wallu mbokki jullit yeeg taalibe yi fare ci dëkk bu tedd bi di Touba te am ay jafe-jafe ci ndox mi boobaak léegi nag ñu ngi ànd ak yéen lu ëpp ayu bés ngir toppal leen liggéey bi ci ay commission yu fasantikoo li gën a fës nag ci liggéey bi jamono yi nekk ci waa technique ak waa social ànd ak mbooleem Euh, yeneen commission yi ak supervision yi fi ñu taxaw nag ni ngeen ko gisee di benn ci kër yi nga xam ne ni benn mbokku taalibe moo ko daal abal ñenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii loru nañ ci mbënn mi booba ak léegi nag ay njaboot yu bari jëlee nañ leen ci ay gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba andi leen fi nag ngir ñu nekkandi fi le temps que ñuy defaraat seen i kër euh, kon mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké woote jëkk ci duggal ci loxoom mel na ni woote bi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi dégg nañ ko ku ne ak nanga nga mane gis ngeen kër gi eh, xam naa waa commission sociale bi ñuy àndal dinañ ci gën a indi ay leeral ci ñaata famille lañ fii logé mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii commission sociale mu ngi koy def waaye di ko def itam fële ci eh, résidence ci séddale lenn ci dund yi waaye yeneen i dimbal yoo xam ne ni bàyyeekoo na ci kuréel gi lépp nag ngir dimbali mbokki taalibe yi ci eh, ndogalu suñu borom bi nga xam ne ni dal na ci seen kaw فجدت لليوم بخير منني وقلتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كان امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأملاح والإقراء jërëjëf mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon léegi rek euh, ci euh, bi ñuy ubbi ñoo ngi nag ci biir kër gi fii di euh, ci bayfal gi kër gi nag li ko tax a jóg du lenn lu dut dimbali yenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii loru nañ ci ndox mi liggéey boobu nag euh, commission sociale aju ci kuréel gi di junnatun Cheikh Mouhamadul Mountakha teg ko waa social nag boobaak léegi ñu ànd ak ñoom di def liggéey bu am solo ci terrain bi ci recenser nit ñi ci recaser leen waaye ci seddale dund yi ak ndimbal yi sëñ Xaadim yaakaar naa ne dutuñu leen ko présenté ci liggéey bu am solo bi tey ji ñoo ngi ci kër gu moxtaare goo xam ne nii benn mbokku jullit moo ko jaayante ndax mën nañoo xam ñaata famille moo fi wu ak procédure liggéey bi ak jëf ju am solo ji nga xam ne nii jànkat la ci mbooleem jullit yi yan kàddu nga ciy yëkkati. jërëjëf euh, comme ni nga ko waxee léegi rek ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha yëkkati woon na euh, jaarale ko ci diggante Touba Ca Kanam ak Hizbut Tarqiyyah ak commune bi euh, ndigal loolu ba léegi ni ci lañ nekk tànk yi ñuy dox nii ci tànk ndigal loolu la ndax kenn ku ne xam ne ndox mi ba mu wàccee ba jamono ji may wax ak yéen nit ñu bare bare nekk ci dëkk bu sell bi di Touba am nañ jafe-jafe dëkkuwaay loolu nag moo taxoon commission bi nga xam ne mooy commission sociale am benn numéro vert yoo xam ne teg nañ ko ak ñenn ñoo xam ne ñi ngi ñëw kër Serigne Touba gi di bindu képp koo xam ne ñëw nga dafa am soxla soo xam ne moo la tax a jóg am na ñoo xam ne bu ñëwee ak dund moo leen tax a am nañ ñoo xam ne bu ñëwee seen force bu yàqu leen tax a jóg am na ñoo xam ne bu ñëwee problème faju moo leen tax a jóg am na ñoo xam ne bu ñëwee jafa jafe-jafe jafe dëkk dëkkuwaay moom mooy tax ñu jóg lii may lii ñu nekk suñu ginnaaw nii jafe-jafe la ci jafe-jafe yooyu mooy jafe-jafe dëkkuwaay kër gi ñu nekk nii benn mbo benn mbokkum taalibe moo ko jël abale ko ci disposition yi nga xam ne mooy décision commission sociale su ko defee mbokk yi nga xam ne ndox mi nangu ni seen kër ñu mën leen a dem jëli delloose leen indi leen recasé leen fii boobaak léegi nag ñi ngi ciy liggéey liggéey boo xam liggéey bu mucc ayib la mën naa ne nii may wax ak yow six familles ñu ngi fi famille bi famille yi buñ ko évaluer mën naa ne daanaka war naa mat cent personnes yoo xam ne nii ñu ngi ci biir kër gi di fi yeewoo nga xam ne ci condition yu am solo lañ nekk kër gi boo fi ñëwee lépp mi ngi fi am na courant am na ndox am nay ventilateur am nay matelas da ngay ñëw rek yow dugg su ko defee nag li ci des ñu bàyyi ko kilifa yi nga xam ne ñoom ñëwee liggéey boobu su ko defee ñu xool dund gi nga xam ne moom tim moo ci war a topp ñu andi ndax nit nag bu fekkee dafa nekk ci ay jafe-jafe lu mel ne am nawet ñëw dugg sa kër yàq sa dund kooko ak dund dina ko xaw jafe liggéey tim bi nga xam ne daan na ko def tim dina ko xaw jafe kon faaw ñu taxawu leen jàppale leen ba dundu gi nga xam ne war nañ ko dund commission bi nga xam ne mooy commission sociale taxaw ci ba li ci war lépp ñu indi ko ci kër gi bu ko defee ñu teg ko ci seen disposition ñoom ñu waxtaan ñu xool dépense bi ñaata lay doon ñu yëkkati ko jox leen ko su ko defee chaque jour bu ñu xëyee di togg bu añ jotee ñu reer ñu añ bu reer jotee ñu reer bu ndekki jotee ñu ndekki ba keroog jafe-jafe yi di jeex ñu mën leen a jël yóbbuwaat leen ci kër yi nga xam ne foofu lañ bàyyi ko euh, li benn la ci kër gi ci kër yi nga xam ne nii tey ji am na mbokki taalibe yu ko able ñi fi nekk itam ci diir bu gàtt rek lañ fi nekk ce qui veut que bu demee ba situation bi changé dañuy dellu seen kër léegi ban dénkaane wala ban soññee nga leen di wax ak yeneen ñi nga xam ne dañoo ci yeneen kër yi ci sàmm gi ak toppatoo gi ak taxawu gi waaw jërëjëf moom laa leen di wax léegi xam nga tey jii dañoo war a gën a sant Serigne Touba ndax makkaan bu mel nii képp ku ko tabax def ci li ci wat lépp nga dégg ñu ne njabootu sëñ Tuubaa am nañ yenn gàllankoor yoo xam ne wàcc na ci ñoom nga jël sa ab able ko loolu lu ko gën a kawe amut kon mbokki taalibe yi nga xam ne ngal la ñoom ñi jëli seen i kër indi leen ci bërëb yu mel nii ak yeneen bërëb yi ci des nañ fonk bërëb yi nga xam ne moom lañ leen dugal ndax li gën a am solo mooy ñu jël kër gi mu rafet loolu ñu dugal la ci bi ngay génnaat kër gi mel ne comme ni melatoon loolu ab sag lay doon ci kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo saytu mbir mi ndax su fekkee ne am na leneen lu ci bokkut leneen ndax dëkk bi dafa xaw a tëradi am na ñoo xam ne ni euh, lu baax a leen tax a jug ndax jafe-jafe bii am ni am na ñu ci profité mhm. bu ko defee loolu tim ñu ciy bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoom tim ñooy nekk ci kër yi

xam ne ñu mën a jëflante moom waaye daal li ñu ëpp solo bu ëpp solo mooy nañ fexe ba kër gi nañ ko sàmm ndax lii alali sëñ Tuubaa la te borom ki ko defar ku baax la ku bëgg sañ Tuubaa ndax mënoon na ko defar ba pare tëj ko ndax bari na kër yu mel ni nekk Tuubaa ñu tëj leen te tey ji mënoon nañ ko ubbi jox mbokk taalibe yi nga xam ne am nañ ay jafe-jafe waaye ndegam defuñu ko am ñu ko def ñu ko def nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi seen lépp seen kër seen dund yàqu seen lépp yàqu ñu leen andi leen fii nañ sàmm kër gi bu baax baax ba bañ koy delloo benn jafe-jafe bañ bisimilah kon jëwriñ ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax mel na ni suñ borom dafa dogal euh, ngeen bokk ci ñi nga xam ne nii euh, taw bi daf leen a laat mel na ni euh, am na fu ngeen jóge muy seen kër ñëw fi nag ngir fas yéene fee loger yow ak njaboot gi say réaction ci jëf ju am solo ji. di santaat yàlla bu baax tey sant ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk tey ci di sëñ Tuubaa lii nag di ko rafetlu lool. lii tamit yàgg nañoo arrivé yàgg na trop. mais tey jii la ko suñu borom dogal. Euh, xam naa ne ay fan ci ginnaaw tuuti rek bi taw bi tàmbalee mel na ni njàqare amoon na tuuti ak njaboot gu sew gi waaye tey jii fa nga jóge ak fii itam euh, lan nga nu mën a wax tuuti daal. waaw comme niñ koy waxee ndax ndox mi bi mu ñëwee. bari woon na ndax da doon bay jaar ci mbedd mi fenêtre yi di dugg ci kër gi mu bari lool yàlla dogal tamit comme ni ñu ko waxee ñu jógee fa am suñu kër mbokk nga xam ne fa lañ jëm fekk leen fa nekk ak ñoom bi ñu fa nekk ñoom dal ba ci boppam tabax ba xaw a màgg di wàcc ba jot faa lor ñetti xale mais suñu borom dogal na leen yóbbu nañ leen fañ nañ leen alhamdulilah rabbil alamin ko defee nag ci lañ jóg nag xam ne jóg jot na fekk leen ci kër sëñ Tuubaa ga ñu indil ñu oto jël xale yi jël bagages yi jël njaboot gi yëpp indi fii jox ñu wax dëgg yàlla foo xam ne nekkuwaay bu baax baax a baax a baax la wax dëgg daal mën nañ ne jëf ji dal nam xel dal nam xel bu baax wax dëgg yàlla nam xel ñun moom liñ ci mën a wax mooy alhamdulilahi rabbil alamin xol bi fees na ba liñ bëggoon wax lépp sax mënuñu ko wax waaye daal di santaat suñu borom bu baax di leen jaajëfal tamit yéen ñi nga xam te ni yéenay dox leen ndax ñëw ngeen fa ba gisal seen bopp gis la fa nekk kon tamit wax dëgg yàlla indi ñu foo xam te ne ni dal na sunum xel ndax buñ ko njaboot ko gisee ñoom ñëpp a kontaan wax dëgg yàlla. dañu bëggoon a xam euh, fi nga jógee ñëw fii ndax am na fu la fekk ndox mi impacté woon la ci ndogalub suñu borom Cheikh mu Mountakha xalif général des taxaw ci taxawaay bu am solo samp ak kuréel kuréel gi ñëw tey jëlee la foofee indi la ci kër gi ngir dalal la loo ñu mën a wax tuuti rek ci fan yi ci ginnaaw booba ak léegi ak tey li nga gis fii. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi nag lool wax dëgg yàlla ndax suñu ndëgër laay la te suñu wetil la waaw lii nag moom bi mu dalee suñ ko wax dëgg yàlla taalibe yi ñu bari jaaxle woon nañ waaye bi sëñ bi yëkkatee kàddoom xam ne ni mbiram la ba yëkkati chiffre boobu ci ay ci ci wàllu xaalis def ko ci ci lañ gën a santaat yàlla gën a santaat bu baax a baax te xam ni suñuy mbir moom dana dana faju yëf yi nag metti woon na lool waaye nag sant yàlla ndax ñun ñii nga gis tey jii nañ ñoo fekk suñu kër déplacé ñu. fan ngeen jógee ñëw fii. Euh, ñoo ngi jógee yoonu Daaru Rahman fële ci fi ñuy wax ñaari kafte côté commercial euh, kii commissariat bi. fan naka la situation bi meloon foofu. situation bi compliqué woon na lool ndax ndox mi dugg na ci néeg yi dugg na ci kër yi yàq na toilette yi bagage yi yëpp ñu ngi ci biir ndox mi ñu sonn mais biñ leen contacter automatiquement ci suba. même pas deux heures de temps def nañ ay réaction ba jëlee njaboot gi génne leen ci ndox mi indi leen fii nga xamante ni kër gu muxtaare la. waaye kër gi daal tubaarkàlla moom tubaarkàlla ñu ngi sant bu baax. waaw waaw maa ngi sant bu baax di sant sañ mun Mountakha mu ngi taxawu jullit yi waaw taxawu nañ wax dëgg fam ñu fekk fa ngeen fa ngeen ma jëlee wuute na ak fi ngeen ma indi maa ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram yàlla àggale ay naalam dund ba daal yàgg ñoo gunge daal waa Touba ci kanam tamit seen liggéey ci dëkk bi rafet na taxaw nañ askan wi kenn jaaxleetul ndax ñoom dëgg yàlla maa ngi leen sant leen gërëm dëgg yàlla. kon daal mën na ne tey ji jëf ji euh, dalu xel la euh, par rapport ak fan yi nga xam ne nii weesu nañ ko. dëgg fan yi moom wax dëgg yàlla dalum xel la ndax ma masaana kii tëdd sama xel du dal maa ngi naan bu tawee guddi fu ma jëm ak sama doom yi courant bi ma nekk yàlla bu ma maas waaye wax dëgg yàlla ah saafara ngeen jafe-jafe jaam yëpp daal yal na leen yàlla doole jàppale. sëriñ Touba fayal leen boppam. jërëjëf ni ngeen ko gisee ni mu ko waxee itam lii benn la ci kër yooyu nga xam ne ni ay mbokki taalibe ñoo ko able ni mu ko waxee ci disposition yi ak famille yi nga xam ne nii jëlee nañ leen fi ay kër yu ruqe yu bari woon ndox tey bi fi ñëwee dégg ngeen leen am nañu mbégte xale yitam seen xel dal na waaye wax na itam ci nekkin wi ndax ay nit la ñoo xam ne nii ñu ngi door a daje xamante guñu kii ak kii ak kii ñoom ñii di euh, commission bi fexe nañ ba jël ay matuwaay yoo xam ne ni ku ci bokkul boo duggee ñu identifier la. waaye di jaajafal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñalal mu yàgg fi loolu te wér di leen xamal na itam ne kuréel gii di junnatun ña nga ca. Euh, résidence Khadim Rasoul di def seen liggéey ci ay commission yu euh, ay commission yu fasanti waaye nag social kenn mënu leen ci ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ci séddale bi ñu ngi ci recensement bi technique ñu ngi ci terrain bi di manque ndox mi communication di ja di yaatal ñeneen ña ca des itam ku nekk ngay def la ngay def ngir làq ngërëmal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te wér